asalaamaaleykum suñu mbokki internet au saint flash comme ça su ne mbégte ak contenté la ñuy ànd ak yéen ci autre bar de saint flash café comme niñ koy defee bés bu nekk dañuy waxtaanee li nga xamante ne mbirum coronavirus te nag sur 1042 tests yi nga xamante ne jot nañ ko euh, prélevé 97 yi nag ñoo ci ñëwaat euh, positif 83 cas contacts, lañ ci nemmeeku am na aussi 14 cas de transmission communautaire yi nga xamante aussi aussi enregistré Oui, Boribinjine, yi euh, Sacré Cœur 2 euh, cas Ben talitamit tamit euh, enregistré ñaari cas tamit 2 cas de transmission communautaire Touba 2 cas Parcel Asseni Ben cas HLM Grand Yoff ben cas Wakam, ben cas Bel ben cas. Comme ben cas cas de transmission communautaire. Taïdi, Nak Senegal Sénégal nag daanaka euh, 53 euh, patients jot nañoo mucc ci euh, mbas mi tamit ba 9 cas graves yi nga xamante service de réanimation Senegal Sénégal nag bi mbas mi duggee ak léegi jot enregistré le ton ci 2714 cas positifs. 1186 euh, yi nga xamante ne jot nañoo mucc ci mbas mi 1497 euh, yi nga xamante ne ba léegi ñoo ngi nekk sous traitement waaye tamit jot nañ cee nemmeeku 30 euh, dese ba tax na tamit ñun seen bopp ñoo ngi jàllee képp koo xamante ne bakkan naa des na ci li nga xamante ne moo di mbas mi ñoo ngi lay ñaanal suuf woyof sa kaw. ki nga xamante ne responsable bu euh, service de réanimation bi nekk fële principal bu Dakar di wuyoo ci Khalifa Ababakar, euh, Wad, moom nag euh, jot naa yëkkati ay kàddu ginnaaw bi muy defee benn vidéo bi nga xamante ne moo ko ministère de la santé di wane ne ñi nga xamante ne di patients yi nekk fële ca réanimation bi nag moom nag ci seen jëm bopp moom ci boppam moo ngi indi ay leeral ci mbir mi ndax nee nga xamante ne mi. naam am na ci euh, dëkk bi waaye nag ñi daan gaañu ci euh, service boobule nee na ci temps normal la ñu ëppee woon que ci li nga xamante ne moo di mbas mi bu mu duggee fii ci euh, Sénégal. kii di Aly Ngouille Ndiaye mi nga xamante ne mooy yore kaaraange euh, réew mi moom tamit ci boppam euh, gisoon ngeen ne am na ay autorisation yi nga xamante ne bëggoon na koo jagleel ñi xamante ne ñenn ci askan wi ñuy bëggoon a dem seen dëkk ngir euh, feete li nga xamante ne moo ji korité bi daanaka nag fu mu toll nii nag yëkk ci waat na ci tànk ndax moom ci boppam mu ngi artu ñooñu nee na nag autorisation yi daanaka da koy daggal dakkal ginnaaw bi nga xamante ne Dakar fu mu toll nii mooy épicentre bu pandémie bi nga xamante ne moo di Covid 19 Bidaniko Phil Lagoon and Lavichi Dakar. ba tax na jël benn risque bi nga xamante ne day yëpp ñi nga xamante ne ñoo fi nekk di dem ci biir euh, région yi ngir féete li nga xamante ne euh, korité bi la moom seen jëm moom ci boppam moo leen di wax ni que li nga xamante ne moo di Dakar ak Thiès daanaka feetu korité benn fan donc donc mën nañ koo féete fi nga xamante ne moo di Dakar ndax li nga xamante ne moo di risque yi bëri nañ te euh, feebar bi mu ngi gën di law ndax nemmeeku na chaque année daanaka bés bu nekk nit dañuy jóge fi nga nga xamante ne moo di garage yu boo maraîcher bi loolu nag dara waralu ko lu dul dem fa ci seen i biir dëkk ngir amal fa li nga xamante ne moo di euh, julli korite moom ci boppam moo ngi xam ne ba tey nii nii Dakar mu ngi amee li nga xamante ne un taux de 80 pour cent ci li nga xamante ne moo di euh, mbas mi moom nag li muy ragal mooy ñu jóge fii dem ci biir dëkk yi di leen ko wàllaat. Mamadou Talla nekk ministre de l' éducation nationale moom tamit yëkkati na ay kàddu ci lu jëm ci ubbite école yi nga xamante ne dëgmal nañ ko le 2 juin nga xamante ne ci leen jëm moom nag nee na bu fekkee fekkee ne disposition yi nga xamante ne moom la ñu war a teg ci table bi ngir permettre ñi nga xamante ne ñoo di jàngalekat yi ak jàngal jàngkat yi nekk ci bonne condition nena nak fekke condition yoyep yëpp réuniruñ ko danika nak duñu amal benn cours le 2 juin ba tax ki nga xamante ne natangom di naataangoom euh, Diop mom nak jox nako ko jox lu toon ci 500000 euh, masques ngir dimbalee ko ci lepp li nga xamante ne disposition yi ñu wara jël ngir xalé yi mëna nek dans de très bonnes conditions ñom nak fu mu toll ni daanaka ci lool la ñuy wéy ndax mom mi di euh, Mamadou Tala rafetlu na. mbir bi nga xamante ne euh, moom la Moustapha Diop euh, amal ak euh, taxawaayam ba tax na moom ci boppam nee na dégg dégg na ñii di inspecteur académie yi li nga xamante ne ñoom lañu doon kaas fan yëpp ba tax na nee na matériel bi nga xamante ne moom lañ doon laaj ak disposition yi daanaka yemb na te aljuma bi incha allah bi nga xamante ne ci lañ jëm daanaka lépp rek mën a antu ba ñu jot ci. lii di réunion wu conseil euh, supérieur de la magistrature bi nga xamante ne ñoo ngi ko doon amal euh, démb daanaka nag ki nga xamante ne moo di njiitu réew mi moom nag euh, fu mu toll ni démb dafa ñëw ba foofu no am ay coppite yi nga xamante ne jël na ko ci seen i doxalin ndax naam am na ñoo xamante ne jot na leen jëlee fi nga xamante ne moo di seen poste waaye am na ñeneen ñi nga xamante ne indiwaat na leen. loolu nak taxna ki nga Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly mom ci bopam léegi mo wuutu ki nga Badjo Camara ci li nga Cour suprême bi waye Demba kanji mom nak jot na ko ko ci wetam fi nga euh, présidence Waï ki nga nak modi Ali Sireba, mom moko wutu Koko di euh, Kanji ci bopam euh, cour d'appel bu Dakar Malika Lamotte mom nak fu mu toll mom lañu affecté fele nga xamante modi di tribunal du commerce pour Dakar ak ki nga xamante nak modi Henri Grégoire Diop mom nak jëlee nañ ko fi nga modi des affaires étrangères ay ndawu journaliste nag ñoo créé benn association association bi nga xamante ne ñoo ngi koy woowee APRES loolu nag moo association de la presse pour l'entraide et de solidarité nous nag noonu la association boobu noonu nee ginnaw bi nga xamantene ne moo di prise en charge yi peut-être naam amuñu ci wala jotuñu ci li nga xamantene ne comme ni ko waree ba tax nañu créer seen association boobu noonu nee ñaari ponk donc moo waral ñu créer ko moo di li nga xamantene ne moo di euh, mi la mise sur pied d'une mutuelle de santé pour ñi nga xamantene ñoo di euh, professionnels yi nga xamantene ñoo ngi liggéey fa ci euh, média yi ak beneen bi nga xamante ne moo di euh, vaste programme d'habitat social pour ñi nga xamante ne ñoo di seen i naataango ak ñi nga xamante ne ñoo nekk foofu ci di bokk ci seen i membre yi coowal phobie ki nga xamante ne moo fi nekkoon maire de Dakar di euh, Diop le maire euh, nekk aussi monsieur Diop euh, bokk gis-gis moom ba tey mu ngi woy ci ay kàddu mi nga xamante ne yëkkati woon na ko ndax nee na mbir mi da ko metti loolu bett na ko xaaru ko woon waaye tamit nee na pare na ngir dimbali ñi nga xamante ne ñoo di enquêteurs yi ngir woyal li nga xamante ne moo di seen liggéey nee na brigade bu mu mënti doom moom pare na pour nekk ci disposition lépp loo xamante ne laaj nañ ko wala lépp loo xamante ne war na ko fournir moom ci boppam pare na ngir a jàppale leen ci li nga xamante ne moo di euh, enquête bi ba tax na nee na au cas échéant bu fekkee ne ji mbir mi jàppandiwul moom ci boppam pare na pour def propre enquête am ba tax na bëgg a xam euh, li nga xamante ne moo di xale yi liñ koy tuumaal fan lañ ko teg fan lañ ko jëlee ak lan moo tax ñu tudd ko ci. yéen suñu mbokk internet yi fii la ñuy ndax képp ak yéen suñu ëttu xibaar di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci même chaîne ak ci La ta mën ngeen a woy di xibaaru ci seen site bi nga xamante ne day affiché tout temps ci seen bas de l'écran du www point